saddid lisaani nawwir janaani soffi amaani wa sidd baraa'i asalaamu aleykum wa wa barakaatuhu ñoo ngi sant suñu boroom tabaaraka wa taala ni mu yellee ci jëmmam jiite as njaamam lot ci lool di julli tey sëlmal ci sayyidul kawnayni wa toqalayni wal fariqayni min urbin wa min ajami sallallahu alayhi wa sallam di yeesal suñu pas-pas ak suñu jaayante ci sëriñ tubaa xaadimu rasuul mbokk yi téléspectateur téléspectatrice yi nga xam ne yéen safoo saxoo di topp seen télé Rewmi TV rawatina seen émission bi ñuy wax keppaaru mag ñi ngeen baaxoo ko ànd ak seen mbokkum daara sëriñ baara mbàkke muy am dimanche bu jot vingt deux heures jàpp minuit ñoo ngi leen di nuyu ci nuyoob lislaam boobu nga xam ne ci jàmm la tàmbalee te jeexee ci barke te mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi nuyoo boobu ak ziyaara boobu ñoo ngi ciy jiital boroom ngëneel cheikh muhammadunil muntaqa bni cheikh muhammadul bachir ayadahu llahu wa nasara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 waaye nuyoo boobu ak ziyaara boobu moom la ñuy yóbbu Medina Baye waaye nuyoo boobu ak ziyaara boobu moom la ñuy yóbbu Canaba moom la ñuy yóbbu Léona Niassène moom la ñuy yóbbu Ndiassane moom la ñuy yóbbu it ci maam Thierno Bachir mi nga xam ne moo amee jataay maam Cheikh Omar Fouti nuyoo boobu ak ziyaara boobu moom la ñuy jox mboolim umma islami bi yépp ñi nga xam ne ñi ngi ñuy topp ci seen télé Rewmi TV waaye ak seen rajo réew Rewmi FM 97.5. ci seen émission bu mag bii nga xam ne moom lañ baaxoo ànd ak yéen muy keppaaru mag ñi ci noonu laay ziyaare waatu Touba saam saam ko sëriñ Baara Xuréja sëriñ Cheikh mi nga xam ne moo amee jataayub sëriñ Baara ja moo yilif penc ma di ko ñaanal yàlla yàggal ko ak mboolem njaboot ko sëriñ Baara Xuréja gépp waxtu wu ci nekk dañuy safoo di saxoo tey topp seen émission bii di keppaaru mag ñi ñoo ngi leen di ziyaara bu baax ñëpp bàyyiwuñ kenn noonu it peccum liir bu neexee ndey jaa jàpp ca wagg ya ndey ji nga xam ne moo jàpp ci suñuy wagg ba ngeen mën a dégg suñuy kàddu ci àdduna bi yépp man koo jariñoo alxaaji Mbagnick Diop ñoo ngi koy biñal beral am nuyoo akub ziyaara di ko ñaanal yàlla sàmm ko waaye yàlla aar ko waaye yàlla dolli xéewalam ba naa li nga xam ne naalal na ko umma islaami bi naa li nga xam ne naalal na ko société bi suñu boroom kattanal ko bam sottal ko moom mbooleem njaboot gi nga xam ne ñoom la jaboote ñu ànd ak moom liggéey bi te di ko sellal ki ci gën a kawe ba ci man mi nga xam ne maa ci gën a xeebu seen émission keppaaru mag ñi niñ ko baaxoo defee mooy dimanche bu jot buñ dajee incha allahu taala fàttaliku kenn ci suñ mag ñi nga xam ne ñoom la yàlla dugal lislaam ji jaar ci seeni loxo ba tax ñun ñu jot ci man koo jariñoo waaye xam ngeen ne ñoo ngi ci weer wu tedd woo xam ne mënee su cee ñàkk waxtaan mooy weeru lan weeru rajab rajab mooy weer wi nga xam ne ah li nga xam ne mooy moom lañuy xàmmee ab julli ndax buñ ne diw ab julli la dañ naan ndax mi ngi julli julli moomu ci weeru rajab wii lañ la ko suñu borom joxoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu jottali ko xeetam wi ci weeru rajab yii ci bis yi nga xam ne moom lañ jublu mooy ñaar fukki fan ak juróom benn guddi ñaar fukk ak juróom ñaar muy kazu rajabin mooy bis bi nga xam ne moom la Sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul waxoon ne kazu rajabin akramani maanaam yàlla teeral na ma ci guddu ci guddik rajab googi danaa ci dikk léegi waaye guddi googu xew yi xew yi ci amoon mu doon xew-xew bu sell waaye bu wér boo xam ne boroom xam-xam yi ñépp yaxal nañ ko muy al ishra wal miraaj bu ci boroom xam-xam yi waxutoon sax te suñu boroom wax ñu ko li ñu suñu boroom wax doy nañu suñu boroom lu mu ci wax bismillahi irrahmani irrahim subhana alladi asra bi abdihi laylan min almasjidi alxarami ila almasjidi al aqsa alladi barakna xawlahu li nuriyahu min ayatina lo ila axiri l aaya la ci suñ boroom wax kon mooy guddi gi nga xam ne tukki bu sell waaye tukki bu riis tukki boobu nga xam ne moom lañ ñu indil sëriñ bi gën ci ñun sërite bi nga xam ne mooy suñu identité muy sërite bi nga xam ne buñ ne diw ab jullit la dañ naan ndax mi ngi julli julli moom muy sërite bi nga xam ne moom la ñuy yonente bi alayhi salaatu wasalaam addiloon moom julli mooy ponk lislaam bi nga xam ne ku ko gëm bokk nga ci lislaam ku ko weddi weddi nga lislaam danaa ci dikk léegi waaye guddi googu mooy guddi gi nga xam ne alayhi salaatu wasalaam ci la ko suñu borom woowoon gan mooy mu ganese ko alayhi salaatu wasalaam xam ngeen ni eggoon na suñu boroom foo xam ne bu ñaanee suñu boroom ne ko dama laa bëgg a gis suñu boroom ci kàttanam ak ci mbaaxam mën na koo may mu gis ko sans condition mën na ko ndax Seydina Moussa ñaan na yàlla ne ko dama laa bëgg a gis suñu borom jox ko ay indication ne ko demal barab sàngam boo demee def nangam ak nangam ak nangam falamma tajalla rabbuhu lil jabali jaalahu dakka wa qarra Moussa saiqan falamma afaaqa qaala subhaanaka inni tubtu comme ni loolu euh, loolu la yàlla waxoon Seydina naa alayhi salaatu wasalaam suñu boroom bu bëggoon bu ko bëgg bu bëggee alayhi salaatu gis ko mën naa indi leeram mu gis ko sans condition sans mu koy jaarale feneen ndax kat alayhi salaatu mooy ki nga xam ne moom la yàlla tànn ci jaamam ñi xaritoo ko moom yàlla moom moo xaritoo alayhi salaatu moom moo ko tànn ci jaamam ñi xool li gën ko gënal moom yàlla muy lislaam mu jox ko ko moom yàlla moo ko tànn ci jaamam ñi xool téere bi gën a matale ci téereem mu jox ko ko wa man yabtaghi ghayra al islaami diinan fa lan yuqbala minhu wa huwa fi l axirati min al xaasiriin ko wax kon yàlla moo ne ëllëg jamal xiyaam diine ju ngeen fi indi ju dul lislaam yàlla du ko nangu kon moo tànn yonent bi aleyhi salaatu wasalaam xool diine ji nga xam ne moo gën a mat waaye gën a jot waaye gën a leer mu jox ko ko waaye xool téere bi nga xam ne mooy téere bi gën a leer te gën a jot te gën a wér mu jox ko ko te mooy alquran alkarim mën nañ koo tuddee hudan des na ko tuddee kitaab des ñi ko tuddee euh, tanzil tur yu bëree bëree bëree bëree bëree bëri bëri bëri bëri loolu loolu li ko waral mooy suñu borom tabaaraka wa moo tànnee alayhi salaatu wasalaam noonu waaye mu tànn ko bëgg alayhi salaatu wasalaam gane si ko ci kaw aras waaye mm, ci fan la ko jaarale mooy bi mu ko bëggee yéege dafa yónni jibril mu dikk ànd ak moom mu dem masjidul haram fan mooy masjidul haram am na ci ñu ne mooy jàkkay boppam ci am na ci ñu ne mooy néegu boppam bi ala kulli xaal boroom xam-xam yi wute nañ ci waaye am na masjidul xaram bu ñu xam boo xam ne fi nekk ni moo nekk makkatal mukarrama ma moo nekk waaw moo masjidul xaram boobu nga xam ne moo doonoon jàkka yonent bi aleyhi am na ci ñu wax ne maanaam li ëpp ci boroom xam-xam yi moom lañ saxanal ne fala ko yàlla yéegee mu jóge foofu de masjidul aqsa diggante bi nag soree na sori waay goo xam ne aleyhi salaatu wasalaam bi mu xëyee bi mu ko nettalee yéefar yi jur na coow ndax diggante bi dafa sori ku ne la ci guddi gi jóge naa masjidul haram dem masjidul aqsa jóge masjidul aqsa dem ca kaw juróom-ñaari asamaan gisee ak suñu borom tabaraka wa taala loolu boroom xol bu yàlla tàppul mënu koo gëm ko boo loolu boroom xam ku ku yàlla dimbali tàpp ab xolam bam nangu leeru lislaam kooku rek mooy ki ko mën a gëm looloo tax alayhi salaatu wasalaam bi mu waxee bi mu xëyee wax ko saxaaba yi am ñu ciy déng-déng waaye seydina aboubacar radiallahu anh bi ko ko alayhi salaatu waxee ne ko bii ci guddi de suñu boroom yéegi na ma jóge naa masjidul haram dem masjidul naa seydina aboubacar daf ne ko soo ne ma woon dem naa ca yàlla it ma gëm ko mu ne ko hakada noonu la demee suñu borom sax day tabaraka wa invité na nga ma ngan ci guddi gi jóge naa masjidul haram jaar masjidul aqsa yéege jóge jóge fa ànd ak Seydina Jibril dem ci kaw asamaan gisee ak suñu borom tabaraka wa taala coow li nag bari lool borom xam-xam yi ne ndax du yàlla roox gi lay yéege ndax ak guddi donte guddi gàtt na gudd la waaye jóge ci guddi nga jóge ci masjidul haram dem ci masjidul saa dafa xaw a jafe looloo tax bi coow li ne kurr alayhi salaatu daal di leeral Seydina Aboubacar naka la ko suñ boroom jée yéege ak moom audience bi mu am ak yàlla ak lan la fa jële te mooy waxtu julli yii mbokk yu julli ci lislaam mooy ponk boo xam ne ku ko bàyyi bàyyi génn nga ci lislaam xoola suñ boroom tabaraka wa taala bi mu yoo yéegee yonent bi aleyhi salaatu wasalaam subhaana li si asra waxul waxul bi ruuxi abdihi de te bu ko waxoon it ñu ne ruux ga la yéege ndax suñu borom yéege ak ruuxam rek kéemtaan la waxuma la ak nag bi abdihi la wax looloo tax sama sëriñ Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu boo demee ci xasidaam gi naan mawaahibul mawaahibul naafia bil jismi jëhra la wax bil iftira yi mooy suñu borom nekkul ne ruux gi la yéege waaye jëmm ji ruux gi ak yaram wi la suñu boroom yéege mu dem toog ak suñu borom am audience en kon loolu lu leer la loolu la Sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul wax mooy bil jismi jëhraa bil yi kon loolu firnde la ci ne alayhi salaatu wasalaam bi mu demee audience bi mu am ak suñu borom nekkul ne ak ruuxam moo dem donte borom xam-xam yi werante nañ ci waaye li gën a wér te ñu sukkandikoo ko ci mbindum boroom xam-xam yi mooy. ruux gi ak jëmm gi jëmm ji ñoo ànd dem gane ji borom bi tabaraka wa taala sërite bi mu ko jox mooy ko mooy julli mbokk yi sëñ tubaa xaadimu rasuul yaxal na ci am mbindam ci téere bi ñuy wax tasawudu sixaar te sukkandikoo ko ci waxi imaamul Ghazali sëñ tubaa nee na wala imaamul Ghazali nee na julli ponk la boo xam ne képp koo xam ne dangaa bàyyi julli ngir danga nga koo weddi koo xam ne dafa lànk bañ a julli ñu ne ko lu tax julli woo mu ne est ce que ci lislaam la bokk kooka moom weddi na julli dèjà léegi ki weddi julli lu dib àtteem nee nañu ñetti fan lañ koy may trois jours toppoo ko sawaay ah julli de yàllaa ko digle soo demee ci alxuraan fekk ko ci soo demee ci xadis yonent bi aleyhi salaatu wasalaam fekk ko ci soo demee ci waxi boroom xam-xam yi fekk ko ci suñ ndëkkee ci di ko wax loolu nag te moom ci boppam mënta comprendre liñ koy wax wala boog mënta dégg liñ koy wax su boobaa li di ab àtteem bu matee ñetti fan te déggul ndénkaan yi koy jox su boobaa boroom xam-xam yi li ñu wax mooy que ne moom daal nañ ko nañ ko rey nuñ koy reyee mooy ki nga xam ne moo amee àtteb lislaam moom mooy woote ci pénc ma ba waa pénc ma dajaloo mu jël si dagg bopp ba mooy ki nga xam ne dafa lànk bañ a julli ngir lan dafa weddi julli kooka li rib àtteem ci lislaam mooy dañ koy tuubloo ñetti fan su tuubee nag dañ koy bàyyi jàngal ko lislaam su fekkente ni tuubut dañ koy rendi dañuy dagg bopp bi suñ ko reyee nuñ koy def dañuy jàpp ne ab yéefar lañ rey kenn du ko sàng kenn du ko sàng kenn du ko suu jullee kenn du ko suul ci armée li julli nii kenn du ko jubale penku nuñ koy def mooy dañuy yabal benn waay mu wàqi ba mu sóor ba mu xóot rek mu jëlu bant falan ko ci mu dugg ci biir mu maasale wan ko ginnaaw mooy koo xam ne dafa weddi julli dafa weddi julli dafa weddi ñàkk ñàkk saxuk julli kooka kon dañ koy rey nuñ koy reyee mooy dañuy woote ci pénc ba ba ñépp dajee imaam jël jaasi tàqale baat beeg bopp bi ci sariatu lislaam wala sariatu nabi sallallahu alayhi wa sallam dee su ko sang dee su ko sàng su ko jullee dee su ko suul ci armeli jullit ñi dee su ko jubale penku dee ko doon du it alal jub amoon baytimaal lañ koy yóbbu trésor public lañ koy yóbbu bu dee bu doon ci eh, bu doon ci république islamique bu doon ci république islamique alal ji nga xam ne moom la amoon dañ koy jël yóbbu ko trésor public kon dee su ko sang dee su ko sàng dee su ko jullee dee su ko suul ci armeel jullit ñi dee su ko jubale penku dee su ko dond dañuy jàpp ne ab yéefar lañ rey moom julli moomu ki nga xam ne dafa lànk bañ koo def te ni ab julli la nag kii moom weddi wut ne sax na ci julli sax na ci lislaam waaye moom daa lànk bañ koo ba def kooka mbokk yi sëriñ bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bii ngir xam le ne dafa diis yàlla da koo fonk da ko boole ci ponke lislaam yi moo tax aleyhi salaatu wasalaam ci sharia bi ko yàlla jox mooy koo xam ne nangu nga ne lis lislaam ponke euh, lislaam julli ci la bokk waaye dangaa lànk bañ koo def koo kay dañ koy rey ba tey kee sax moom da koo weddi moom dañ nañ ko may trois jours délai trois jours lañ koy jox kii nag dafa lànk bañ koo def kooka moom kenn du ko may trois jours kooka ay heure lañ koy may ay heure heure yi naka lay demee mooy bu waxtu julli jotee wa njëkk jot rek ca lañ koy topp diw demal julli ji diw demal julli ji diw demal julli ji su demee julli ji ñu xam ne julli ji na suñ demee ba waxtu wa des daruur yi kese am na lu ñu naan muxtaar am na lu ñu naan daruur yi xajul ci émission yi waaye kon danaa ko leeral ci yeneen émission waaye su fekkente ne xajul ca daruri ja ñu dem ba daruri ja des loo xam ne boo ca jàngee faatiha yamoo ca rek mu jeex yi dañ koy rey nuñ koy reyee nañ reyee woon kee lañ koy reyee rey moom rey la rek xanaa kay mu rafet ak mu ñaaw waaye ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk nuñ leen reyee mooy jaasi lañ leen rey te imaama leen rey ci sariyaatu nabi salaay salaam xanaa kay la ca nekk mooy kee dañuy jàpp ne ab yéefar lañ rey dee su ko sàng dee su ko sàng dee su ko jullee waaye kii dañuy jàpp ne ab jullit lañ rey dees na ko sang dees na ko sàng dees na ko jullee dees na ko suur ci armeel jullit ñi dees na ko dees na ko juble penku waaye nag ndax imaam bi gën wala kilifa diine la ñuy yebal mu jullee ji ko déedéet dañuy woo am ma njaay gay rek benn waay la ñuy woo rek am ma njaay gay sama doomi bàjjan la lañuy ñuy woo rek ne ko kaay jullee ko benn waay rek lañuy woo rek mu dikk kaay ne ko kaay kaay jullee ko mu dikk rek taxaw jullee ko après ñu suul ko ñaanal ko wan ko ginnaaw mooy kon ñoom ñaar lii seen différence mooy kee ab yéefar lañ rey moo tax kenn du ko suul ci armée li ñi kenn du ko sang kenn du ko defal li ñuy defal jullit kii nag ab jullit bu saay-saay la ab jullit bu saay-saay la moo tax mboolem lu ñuy defal ab jullit bu faatu des nag ku ko defal ndax kat ab jullit la waaye dafa saay-saay donte jullit bu saay-saay la waaye li ñuy defal ak jullit lépp lañ koy defal mooy des na ko sang des na ko sang des na ko jullee des na ko suul ci armeel jullit ñi des na ko jubale penku des na ko dond kon noonu la demee sërite boobu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam indaale moom mooy julli loolu mi nga xew woon ci guddi gi ñuy wax kazu rajab bi rajab bi akramani nag maa ngi koy wax léegi moom la sëñ tubaa xaadimu rasul waxoon bi ko sëñ tubaa waxee man nañ cee déggee alhaaji muhammadul faadal mii nga xam ne yàlla moo ko fayee cheikh ahmad bamba xaadimu rasul sëñ Tuubaa nee woon man danaa simmiku ci moom su ci xajee baax na su ci xajul ci dinaa ko ci xaj-xajal moom Mouhamadul Fadal sëñ Tuubaa nee woon Mouhamadul Fadal bu feeñee woon ca pël ga ko jëli yàllaa ma boole ak moom su feeñee woon ca pël danaa ko jëli moom Mouhamadul Fadal moomu weeru rajab wii la tombee woon ak sëñ Tuubaa di taalif xaside gu ñuy wax mafatixul bisri bi mu koy taalif booba mi ngi wër suufu Tuubaa sii bi muy bi muy nekkee bi mu nekkee bi mu nekkee ci suufu Tuubaa di ko wër ci 88 bi mu gisee suuf si ba tàmbali kër ga indi woon fa fukki diit ak juróom ngir ñu di ko defal defaral sanc bi ci biir bi ñuy defar sanc bi mooy bi ñuy làkk kër gi lay taalif xasida gu ñuy wax ma mafaatixul bisri mu ngi demoon ba toll ci bayit yii yaa faadilan فضله القلاق يا من به فارقني الإملاق واجهتك اليوم وللرزاق كان بما تنمو به الأرساق ci bayit yi la tolloon moo tax biñ dikkee ne ko soxna Hawa bu sa am na gan mu jëlu kayit bind ci Muhammadul Faadal Muhammadul Faadal yonent bi alayhi salaatu wa salaam la ko tuddee woon émission bi passé moom lañ doon waxtaanee. andi nañ ci ay leeral yu am solo am solo am solo am solo am solo waaye ngëneel sëñ Fallou moomu nga xam ne moom la yàlla fayee woon si Ahmadu Bamba moom moo waxoon ne yonent bi dane lay rek ma ne cëpp mooy guddi gi aleyhi salaatu wasalaam rañaanee moom ci la gane àdduna mooy kon ndekete bis bi sëñ Tubaa doon taalif xasiida bis Bisri ba toll ci yaa faadilan bisub Kazu Rajab la woon bi muy toll ci bayit yooyu it ndekete bisub àjjuma la woon te guddi la woon ci la Cheikh Mouhamadou Fadel gane àdduna moo tax mu tuddee ko Mouhamadul Fadal waaye ngëneel yi ko yàlla jox ci liggéey bu rëy bi nga xam ne liggéeyal na ko lislaam waaye liggéeyal na ko Sëñ Tubaa mënee su ko waxtaani ci benn émission émission yi weesu waxtaan nañ ci waxtaan yu am solo am solo am solo am solo bis bi nga xam ne moom lañ koy defal moom Sëñ Fàllu ci boppam moom moo ko daan defal boppam moo daan def bu jotee mu dem fanaan di Daaru Salaam bu xëyee dem kër siñ aafiye ñang mi nga xam ne moom la bokkal way jur wu jigéen muy soxna Hawa Buso kon alxaaji Mouhamadul Faadal bis la boo xam ne moom ci boppam moo ko daan defal boppam waaye bis la bu làq ay ngëneel yu baree baree baree bari yoo xam ne xajul ci benn émission xam ngeen ne ci loolu mbokk yi maa ngi ko doon wax ci émission bii weesu di wax ni bii di ñëw ñi ngi war a waxtaanee jàmbaari lislaam koo xam ne kenn la ci njabootuk alhaaji Mouhamadul Fadal mii ma doon wax muy kan Seex alhaaji Mouhamadul Amin Baara Fadilu muy alhaaji Baara Fàllu lu waay gàtt-gàtt ab dégg mbokk yi xam ngeen ni yàgg ngeen woo dégg alaaji Baara doomi Galaas Makka yoonu tool la ko def aj na umra na loolu moom loolu moom lu way gàtt gàttu dégg dégg nga ko yi baara doomi galas makka yoonu tool la ko def aj na umra na loolu moom lu waay gàtt gàttu dégg-dégg xanaa dégg nga ko kan mooy alxaaji Mouhamad Lamine Baara mooy ki nga xam ne sëñ sëñ fàllu da koo tuddee sëñ baara rakkam sëñ baara mi nga xam ne moo topp ci sëñ fàllu sëñ baara mi nga xam ne moom moo topp ci moo topp ci sëñ fàllu ndax sëñ fàllu 88 la sëñ Baara di 91 sëñ Basiiru di 95 kon sëñ Baara mi nga xam ne moo topp ci sëñ Fàllu sëñ Fàllu moom la tuddee alhaaji Mouhamadou Lamine Baara mii woy juróom jigéen ñu koy wax maam Xadi Sàll waaye mbokk yi baax yi bokk baax na ndax gàngal ci ak mbaax bu ma ne baax yi bokk baax na mooy que ne doomi alhaaji Mouhamadul Fadal kuñ ne sëñ Fallou looy baayam kan mooy sëñ Fallou maa ngi koy wax léegi mooy boroom xam-xam boobu nga xam ne moom la yàlla wuyu woon ci boroom xam boobu nga xam ne moom la yàlla joxoon ijaaba boroom xam-xam boobu nga xam ne moom la yàlla joxoon baatin boroom xam boobu nga xam ne moom la àdduna bépp xamoon ne lu waay di lijjanti te bëgg mu sotti jaar ko ci sëñ Fallou boo ko jaaree ci sëñ Fallou dana dana sotti bu yàggu dara rek yàggu daara rek maa ngi dégg sëñ Cheikh Assou Faye maa ngi koy ziyaar bu baax a baax a baax a baax euh, yàlla yàlla dolli koo sàmm muy nettali Serigne Cheikh tiijaan si almaktum mii ay jamono bi nga xam ne am lante na ak sengoor ba Senghor denc ko sëñ Fallu xëy jóge tuuba taal otoom dikk pale gis président Senghor bi mu dikkee dana ko salaamaaleykum wa rahmatulah dafa dikk bi mu dikkee. daf ne ko leen rek ma yëkkati mooy maanaam bu la yàlla dénkee réew mi boo fi bëggee am jàmm kilifa yi diine yi da leen jox seen wàccuwaay te sëriñ seex tiijaan ci kilifa yi ñi nga ngànk diine ji la bokk dama bëgg nag kon fa mu nekk mu génn fa léegi nu mu gën a gaawee Senghor ne ko loolu sëñ bi man loola awma ci parole ndax ay loi la mu ne ko ay loi dañoo dajale dañoo dajee woon. tënk ko mën nañoo daje dajewaat tënk ko li wér mooy lum gaaw gaaw lum yéex yéex yéex yéex yéex na ko tijji léegi bàyyi ko léegi mu dellu këram xoolal intervention boobu te mënoon a toog fa toog yor téléphone am te mënoon koo lijjanti ci baatin waaye mu jëfandikoo saahir si mooy que ne déparé Touba taal otoom ñëw misaal moom li ma ciy bëgg a wax mooy que ne kii ñuy waxtaani muy Alhaji Mouhamadou Lamine Baara loola yàlla def ko koo dondaloo ci Sëñ Fàllu mën naa ni njabootu Sëñ Fàllu gépp ndax sëñ bu sa Dieng mi nga xam ne moo ji sëñ Abdou Karim mooy taaw Sëñ Fàllu waaye sëñ Modou Bousso Dieng mi nga xam ne moo njëkk a wuutu Sëñ Fàllu lu mel nii gaar na ko ci bitim réew boo déggee ñu daan Modou moodu yi mooy moo ay sénégalais yu bari ñoo nekk bitim réew yàgg fa te mënuñoo am i kayit moom bi dikkee moom sëñ Modou ci intervention am la yàlla dogalee ñoom ñu amee cay këyit moo tax bi ñibbisee ñu at moom ñu tuddee leen moodu moodu yi mooy sëñ moodoo leen indi looloo indi tuuru moodu moodu yi alhaaji baara mii baatin boobu la ko yàlla joxoon waaye saahir soosu yi la ko yàlla joxoon mooy doomi sëñ fàllu la waaye ak mbaaxam akuk oyofam lu way gàtt gàtt gàtt xam-xam ñun ñi nga xam ne ay ndaw lañ ci at yu mujj yi rek li tax ñu xam ko mooy naka jëkk boo demee mooy ki nga xam ne ba bi muy doon sëñ tubaa mës ta tëju alaaj baara bi muy doon sëñ fàllu mës ta tëju bi muy doon alaaj baara mës ta tëju bi muy doon sëñ fàllu mës ta tëju bi muy doon sëñ tubaa it mës ta tëju kenn mooy ku baax ku oyof ki nga xam ne soxla soo mën a am boo dikkee bu soobee yàlla bu di ko baatin dee liggéey lijjanti dana ko lijjanti ci baatin bu ko saahir dee lijjanti it dana ko lijjanti ci saahir te lii may wax nii ñi ko fekkee ngi fi ay fee la yoo xam ne ñun ñoo jàkkaarloo ak moom man fekke naa ab jataay kilifa guñ fa yónni woon ci ay mbir yoo xam ne xewoon na koo xam ne daf koo defoon tuddoon ci turam bi ñu dikkee bi ñu ko ko waxee fi saasa daf ne defuma ko de wo daf ne diw lam def de digaluma ko ko fi saasa la ni diw alaaji loo wool ma diw mu ñëw wool ma ko léegi ne ko bugg si ma léegi santaani wu ma ko loolu santaani ma ko defuma ko ko <laughs> loolu maanaam moo doonoon mbiram mooy que ne jub ga ak dëggu gi ak xam gi jamono foo ko takk da koo romb mooy koo xam ne ni ma koy waxee néegi ndax fii mu ne ku yàlla dimbalee nga wa ku yàlla dimbalee nga war a dimbalee waroo jafe sëñ fàllu sëñ fàllu loolu la ko yàlla dimbalee woon mooy que ne fii mu ne booba jamono demeegul nii waaye malgré jamono demeegul nii sëñ fàllu daanaka waxtu woo dikkee ñu ne daa tëju rek daa nekk ca boroomam su nekkul ci boroomam mu ngi foofee ci buntu këram moo tax moo tax fii mu ne. nga dégg gars yi di wax baatu galas baatu galas te xamuñu lu muy firi mooy moom da daan wax ne Fallou di moom mi ngi ne dalas fii mi ngi ne jalas fii maa baatub jalasa mooy firi toog bu dee ci waa égyptien yi bu dee ci masro ja gaal lañ koy wax ja ci Égypte boo demee gaal lañ koy wax moo tax jalasa mooy galasa jalasa mooy galasa moo tax bu Sëñ Fallu di wax ne maa ngi ne galas fii nit ñi jël turu galas far di ko tuddee ay doom ngir barki bi nga xam ne moom la yàlla def ci làmmiñam baatub jalas mooy galas mooy fàllu de moom mi ngi ne jalas fii mooy mi ngi toog fii baatub jalas nag bu dee ci Égypte ja moo fay ga galasa moom ñoom jalasa galasa lañ koy jàngee galasa loolu moo tax nga dégg ñu naan Alaaji Baara doomi galas galas ji ci jalas la bàyyi ko mooy sëñ Fallou yitte joo mën am boo dikkee gis ko mu fajal la ko am na ku ma sa dikk ne ko damaa rey tubaab ñu di ma laaj di ay téeméeri junni loolu kay moo gën a garaaw ku dikk ne ko sëñ bi damaa rey tubaab te ku xam na ci jamono boobu ko tubaab tama du la ëppi bum ku ko rey tubaab reyee ko Ndakaaru ñaabar ñaabar ba dikk ba Touba naan sëñ Fallou dama ak rey tubaab laa ilaha illallah waaye dal ga ak nangu gim nangu ku ko ko teg ak tuyaaba ji mu bëgg ci moom moo tax weddiwu ko ci dara damaa rey tubaab ñu di ma laaj di téeméeri junni la def la ko wax mu dalal ko toppatool ko téeméeri junni ya tegal ko ci ñaar fukki junniy paas tegal ko ci ñaar fukki junniy sërica te daal ne ko dangaa fàtte mu waa ji ne bari nar a jóg mu ne ko danga fàttee ñaanlu xoolal wax xoolal loolu ku dikk ne damaa rey tubaab soxla am yittee téeméeri junni nga jug ci dugg ci biir lijjanti téeméeri junni di ko jox ko tekkee ñaar fukki junni ne ko lii damaa bëggoon waa ji nar bari nar a jug nga ne ko xaaral joxaguma la paas yëkkati ñaar fukki junni tegal ko ci mu ne bëri nar a jug nga ne ko joxala joxaguma la sëri ca yëkkatiwaat ñaar fukki junni tegal ko ca ne ko sëri la mu ne bari nar a jug nga ne ko taxawal toogal ba ñaanlu xoolal dal gim dalal gim ko dalal ak maanaam ni mu fajee aajoom ak yitte jim ko jox de yàgg ngeenoo dégg ñuy nettali ki nga xam ne da doon def maanaam euh, waxtu wucc waxtu wucc oh, dafa dafa tudd doo dafa dikk ni Sëñ Fàllu damaa am doom te yow laa ko tuddee bi doom ji demee ba doo xaw a kii tuuti mu ne da koy indi Sëñ Fàllu wax doom ji ne ko bu ma dikkee bu ma nee la bu Fàllu rek wuyul mu dikk ci kanamu Sëñ Fàllu naan ko Fàllu waa ji du xale bi ba ñëw wuyu malgré ànd ak yooyu yëpp sëñ bi xam na li xew waaye nag waxtu wu ci nekk saa yoo dikkee ngir nax ko la nga soxla dana la ko jox te du la xamal mukk du la weer mukk ne xam naa li xam naa say plan alaaj baara kaan wii la amee woon mooy ca tëmb nga koy fekk soxla soo ko wax su dee su saaxiir wala faj am na ci meer bu dikkoon ci moom ne ko dafa am sama ñaari doom yuñ jàpp di jooy ne ko mbàkke damaa bëggoon nga dimbali ma ci rek ñaanal ma ci mu ne ko loolu du lu ñu ñaan lu ñuy lijjanti la ab téléphone am alaaj baara lépp lu ab téléphone mën a lijjanti si alaaj baara mboolem lu ab mën a mën a lijjanti wallaahi baatin du ko fekke lépp loo ab téléphone am mën a lijjanti rek du egg ci du egg ci ñaan day jël téléphone am fi saasa lijjanti ko mu génn ca loola. xanaa kon ndax fi mu nekk nii gis nga wa amma maa yanfau naas fa yamkusu fil ard ku amal njariñ nit ñi yàlla bàyyi la ci kaw suuf moo tax wax dëgg yàlla suñu borom barkeel na ak dundam waxuma la dara waaye relation bi nga xam ne moom la amoon ak njabootu sëñ tubaa gi mboolem ku fi doonoon doomi sëñ tubaa rek alaaj baara muritu ñoom ñëpp moo tax bi ñoom ñëpp demee yàlla lim ko fayee mooy moom moo leen wuutu xoolal Cheikh Mouhamadou Lamine Baara ak Sëñ Fàllu mën naa ne moom moo doonoon garde corps Sëñ Fàllu Sëñ Abdou Lahad noonu Sëñ Abdou Khadir noonu Sëñ Saalimu mii noonu ba ci Cheikh Mouhamadul Mourtada am na ci événement yoo xam ne bu Sëñ Mourtada daan julli si ci jumaa ji moom ngay gis moo ànd ak moom Sëñ Abdou Khadir mii moom moo doonoon ab garde corps am atum 76 xaw ma 78. bi si Abdou Xaadir di dem màkk dégg naa si Abdou Lahad daf ko woo mu dikk mu ne ko sa baay bii damaa bëgg dafa dafa bëgg a aji Màkka damaa bëggoon nga ànd ak moom boo àndeek moom dem ba dikk boo liggéey fa kanam Sëñ Tuubaa maa la fay séere at moom ba Sëñ Alaaji Baara armalut forog la sol forog armalut de solowut comme ñiy aj di yéene naan day aj comme moom déedéet forog ak caaya la la ajee mag armalut ngir lan ngir saytu Sëriñ Abdou Khadre garde ko ba ci mbooleem fu mu toll fu aajoo dimbali mu dimbali ko fu aajoo taxaw mu taxawu ko ba Sëriñ Abdou Khadre ñibbisiwaat ci jàmm sëñ Fallou mii nettali nañ ne am na tukkeem boo xam ne dafa ànd ci convoi bi ñu dem ba mu yàgg sëñ bi taxaw bi bi convoi bi taxawee dafa laaj ndax alaaj ana alaaj baara ana alaaj Mouhamed Lamine baara ñu daw wooli ko woowi ko mu ñëw bi mu ñëwee mu ne ko li tax ma doon laaj ba xam ndax yaa ngi ci tukki bi wala déet damaa xam ne boo ci àndee danañ dem ci jàmm danañ ñibbisiwaat ci jàmm baax na bismillah mu daal di dem delluwaat ci otoom convoi bi door a déparaat kon sécurité sécurité sécurité Sëñ Fàllu ci wàllu saahir alhaaji Mouhamed Lamine Baara mii mooy ki nga xam ne moo ko yoroon waaye xoolal Cheikh Abdoul Ahad baayam boobu xoolal Cheikh Abdoul Ahad fi nga xam ne soo événement masaana jot koreeg tabaski sëñ Abdou Khadre buy jiite si wala ajjuma sax moom day jóge këram dem ci ànd ak sëñ Abdou Khadre andi ko ci jumaa ji mu jiite ba noppi mu àndaat ak moom ba këram mu ñaanal ko mu door a del mu door a ñibbi ak booba dayo bi mu am ci ci ci yoon wi waaye booba it personnalité bi nga xam ne moom la am ci yoon wi nga xam ne booba alhaaji Mouhamadul Fadel mi nga xam ne moo fi bàyyi ko mooy première personnalité di murit mooy personnalité bi jiitu ci yoonu murit booba ndax bàyyam mooy xalifa général des murit ginnaaw bi fi sëñ alaaji sëñ Mouhamad lañ fa sëñ Mouhamadul Fadel jugee sëñ Abdul Ahad mi nga xam ne moo ko wuutu moom sëñ alaaji Baara bokkoon na ci ñi gën a sës ci Cheikh Abdul Ahad waaye xoolal malgré ànd ak yooyu yépp moom ku mën a doon ci ñoom taxawaayu taalu bi lay indi doon sab baay faal doon sab baay faal ba taxawu la fam la war a taxawoo ba ci siñ ba ci siñ saalihu mii nga xam ne moo fi mujj ci doomi sëñ Tuubaa yi loolu loolu di taxawaay bu am solo am solo am solo am solo am solo waaye li mu liggéey li mu liggéeyal lislaam boo demee Touba Aliya danga nga fa fekk jumaa ju mag joo xam ne xutbay si Ahmadu Rafaa yi yii nga gis ca jumaa joo joojee la koy defee jumaa joojee alhaaji Mouhamed Lamine Baara moo ko fa def yóbbu fa sëñ Ahmadou Rafaay ngir mu fay jiite aljumma la tax mu doon ko fa yóbbu it xam na ko ndax kenn ku ci nekk yaa gën a xam sa njaboot li tax mu tànn sëñ Rafa yóbbu ko fa xam na ni am na message bu lislaam dese boo xam ne warees na koo jottali te Cheikh Ahmadou yi mii doy na ko ci ngir mu jottali ko looloo tax bi mu tabaxee jumaa sëñ Alaaji Baara sëñ sëñ Ahmadou yi mii yàlla yàlla sàmm ko moom la jël yóbbu ko fa ngir muy taxawee jumaa ji waaye lim maye ciy oto lim maye ciy kër lim yo lim yoraloon ay dépense ci ay njaboot kenn mënu koo takk laa tuadd wala tuxsaa laa yuadd wala yuxsaa lim maanaam lim mu dimbali ci ay doomu aadama ñii mu wuta ay visa ñu tukki ñii mu may leen oto ñii mu may leen kër ñii mu yoral leen seeni dépense kenn xamul nu mu toll te suñu boroom tabaaraka wa taala moo ko suturaalee woon ci ay jamono waaye mission bi ko fi yàlla indee woon moom xam na ko moo tax lu mat a def muy dimbale doomu aadama sëñ Fallou danaan wax ni jaamu yàlla ci jaami yàlla danaan wax ni jaamu yàlla ci jaami yàlla yi loolu mooy lan mooy que ne boo bëggee yàlla gërëm la da ngay sàkku ngërëmal yàlla ci jaami yàlla yi moom liggéey bi nga xam ne liggéeyal na ko yàlla li ci gën a fés te gën cee rëy mooy ci jaami yàlla yi moom la doon jaamoo yàlla ndax kat ku am sa jur woo xam ne lislaam soxla na ko nga waggar ko saytu ko sàmm ko ba suñu boroom suturaal la ci nga am ci li nga bëgg ah yàlla xam na ne yàlla xam na ne pay yàlla rekk lañ séentu yàlla defal ko ko ndax wax dëgg yàlla taxawaay bi rëy na lool ci yoonu murit waaye xoolal bi mu wutoo sëñ tubaa xoolal bi mu wutoo sëñ tubaa moo tax njabootu sëñ tubaa gi bi mu fi jógee moom la yàlla dogoon moo wuutu sëñ tubaa mooy sëtub sëñ tubaa bi nga xam ne moo njëkk a wuutu sëñ tubaa man maa dégg ci làmmiñam mu wax ne ndax maa ngi wax léegi ne sëñ baara lañ ko tuddee man dégg naa ci làmmiñam mu nettali ne 1928 bi sëñ fàllu jógee màkka ñu koy nganali ndindi ba fa sëñ baara ñëwee ci la ne ko yóbbaaleel sa doom kon 1928 lañ ko joxoon sañ baara waaye jox nañ ko sëñ baara teewul mu boole ñaari kër yi ke sëñ baara ke sëñ fàllu génn kër lañ am ngërëm fee waaye am ngërëm fii waaye am ngërëmal it ki tax ki waral kër yooyu te mooy ngërëmal sëñ tubaa ndax damay wax ne xilaaf ak sëñ tubaa képp ku ci toog sëñ tubaa ko tànn xilaaf ak gii képp ku ko yàlla jox rek sëñ tubaa ko tànn alhaaji Mohamad Lamine Baara mii yàllaa ko tànn boole ko ci ñi nga xam ne ñoo mar ñoo war a wuutu sëñ tubaa xoolal bi mu wuutoo sëñ tubaa lu mu wax maanaam liñ naan démocrate liñ naan ko démocrate mooy alxaaji Mouhamadou Lamine Baara bi mu wuutoo sëñ tubaa mboolem sëti sëñ tubaa yi ñi sëñ tubaa jur seen baay ak ñi mu jur seen yaay la dajale ñu dikk mu ne leen ak mboolem seex yi yoonu murid yi mboolem seex yi yoonu murid ñëpp la woot ab woote bu yaatoo yaatoo yaatoo yaatu la bi ñëpp dikkee baat yi la leen wax daf ne leen damaa bëggoon ñu waxtaanee liñ bokk ndax kër yëf yi ña ko moomoon dem nañ waaye ñi ko bokk ñoo fi des xoolal xoolal maanaam maanaam dimension spirituelle boobu nga xam ne xoolal nangu na ne dondu moom kenn ku ci nekk sa baay nga koy def <laughs> kenn ku ci nekk nit mënta dondu baayam dondu bàyyi jàmbur maanaam njaboot sëñ Tuubaa gi ñoom de ñoo doonoon sëñ tubaa bi fi sëñ bi ñu fi jógee ñoom doomi sëñ tubaa yi comme ñun ñëpp ay sët lañ ñun ñëpp ñoo ci bokk yam kaay leen ñu waxtaane ko mooy ñam seen yëf dem nañ mais ñun ñi ko bokk ñoo fi des xoolal googu yaatal daal di ne tàllal naa loxo ñëpp moo taxit it bi mu fi nekkee ñëpp a ko joxoon loxo ñëpp a ko joxoon loxo mooy lépp lu wax ñu def ko nu ko bëggee ñu defee ko ni diir bu gàtt ñaari at ak juróom benn weer maanaam fan trent mois la Alaaji Baara wut sëñ Tuubaa mais ci biir 30 mois yi rek maanaam ni mu taaralaatee jumaa ji xurmay xurumi jumaa ji ni mu ko taaralaatee ak penc sëñ Tuubaa yi maanaam ñeenti penc yi nga xam ne moo doon ñeenti kër sëñ Tuubaa yi fenn fu ci nekk mu fexe ba ab tali jóge fa ñëw si ñëw ci jumaa ji loolu lépp ci 30 mois la ko def wàllu assainissement nag 30 mois yi ñaar fanweeri weer yi nga xam ne moom la wut sëñ tubaa taaralaat na ci jumaa ji ba mu mel ne madinatul munawwara waaye ci fanweeri weer yi ñeenti kër yi xam nga sëñ tubaa bi mu sancee tuubaa ñeenti kër la ko sañcee fii jumaa ji nekk moo doonoon tuubaa bayti maanaam kër sëñ Modou Moustapha moo doonoon daarul quduus kër sëñ bu moo doonoon daaru rahman moom lañ daan wax daaru naar fala daan sëñ tubaa daan dalal naar yi muñ ko masaan a gare si fii sëñ basiiru nekk mooy daarul minan ñeenti kër yooyu ñeenti kër yii moo doonoon këri sëñ tubaa moo tax bi mu bi mu toogee xalifa dafa fexe ba diggante pencum daaru xuddoos pencum kër sëñ Suwaybu pencum daarul minan ak pencum guy mbind ñeenti penc yii mu fexe ba fenn fu ci nekk ab tali jóge fa ñëw si ci jumaa ji ab tali dana jógee guy mbind dem jumaa ja li jógee jumaa ja ñëw daaru minan waaye tali jógee daaru minan dem Kër Sëriñ Suhaybu bi tali jógee Kër Sëriñ Suhaybu bu dem daaru xudóos jógee daaru xudóos dem jumaa ja lii ci fanweeri weer yi mu wutu Sëriñ Tuubaa rek la ko def waaye taar bi mu taaral jumaa ji mooy euh, parasol yi ngeen gis ak karo giñ karo óol euh, bi óol bi maanaam li wër jumaa ji waaye karo gi nga pavage gi nga xam ne pavé nañ ko li wër mboolem jumaa ji taar boobu ak biir jumaa ji jëmmi biir jumaa ji biir jumaa ji liñ fa yeesalaat ci ay rafetal yoo xam ne yooyu yëpp ci biir fanweeri weer yi mu wut sëñ Tuubaa rek moom ci la ko def xam ngeen ne trent mois mooy deux ans 30 mois mooy 206 mois 2 ans et demi li muy gàtt gàtt gàtt gàtt gàtt gàtt réalisé na fi loo xam ne mën nañ ko buñ ko décortiqué woon mën na ab émission loolu nag li ko waral loolu moom tawféex la tawféex la rek waaye wax dëgg yàlla ñaari at moom li ci xaj bariwul président sax ñaari buñ ko falee balaa former gouvernement am bay saytu lim bàyyi woon bay tàmbalee liggéey daanaka day dem ñaari at waaye yëfi Sëñ Tuubaa yii da dul moo tax day mbiri baatin moo tax continuité la képp koo xam ne tegu na ci sab loxo fa ñooña teggee woon seen loxo rek fa ngay teggee fa ngay teggee mu mu dem looloo tax sëñ Sidi Muxtaar bi mu dikkee fa sëñ Alaaji Baara teggee woon loxoom rek moom foofa la ko teg yal na yàlla dolli leen leer ñoom ñaar te dolli leen ngërëm kon kii ñuy waxtaane muy alhaaji Mouhamad Lamine Baara muy doomi Cheikh Mouhamadul faadal jëfam rëy na lool ci lislaam waaye bëgg gi mu bëggoon sëñ fàllu waaye ni mu meloon ci sëñ fàllu nga xam ne kër gi mu xéeroon ci sëñ fàllu tax na lépp lu waay bëgg ci moom te di ko wut ci moom jaaree ko ci sëñ fàllu alaj baara loo ko mën a wax ci àdduna tuddal sëñ fàllu rek moo tuddee sëñ fàllu rek am nga ko moom sëñ fàllu rek la moom lépp loo ko wax sëñ buy ñaanit sëñ fàllu doo ngi lay ñaani moom léppam sëñ fàllu la moo tax it moo tax fi mu ne boo demee ci njabootam daanaka da nga fekk ay sëñ fàll yu bëree bari bari yoo xam ne seeni tur dañ koy teqale dañ koy tudd maanaam dangay ngay tudd da nga naan sëñ galas ne seex ndindi ne galas nangam galas nangam galas nangam galas nangam te yooyu yëpp bëgg gi bëgg sëñ fàllu moo ne ñëpp sëñ fàllu leen tuddee waaye bëgg gi bëgg sëñ fàllu moo tax kasratul asaami dalilatun anal musamma saami tur yu bari day wane màggug kañ ko tuddee day wane màggu kañ ko tuddee looloo tax boo dikkee ci njabootam man nga faa tudd ay sëñ fàll yu baree baree bari yoo xam ne ci jenn bennum sëñ fàllu lay dellu muy wéy juróom ngir bëgg gi mu ko bëgg looloo tax bi mu fi bàyyi ko ci 2010 Cheikh Mouhamadul Moustapha mi nga xam ne moo ko wuutu ñoo koy ñaanal bu baax yàlla dim yàlla dëbb ko kattan waaye dimbale ko te sàmm ko daal di koy tànnal bis bi bisub sëñ fàllu bi mu sësoog bisam bi moo tax sëñ Moustapha wax ne buñ ne suba la ñuy màggal Kazu Rajab bis boobee mooy bisub Alaaji Mouhamadou Lamine Baara tey jii sax muy dimanche bi tey jii waroon nañoo am délégation bu fa bàyyi koo dikk ñu ànd ak ñoom waxtaan wi waaye yàlla dugal démb lañ jàpp waaye li ko waral mooy tey ci dimanche bi dafa am benn conférence boo xam ne sëti Alaaji Mouhamadou Lamine Baara yi ñu ngi koy def foofu ci Aliya looloo tax ba délégation bi waroon a ñëw ngir ñu waxtaani Alaaji Mouhamadou Lamine Baara gàllankoor boobu lañ am ci dimanche bi ba tax tey mënuñoo ñëw moo tax man ma far leen ci wuutu ngir ñu waxtaane alxaaji Mouhamadou Lamine Baara kon seex Mouhamadou Lamine Baara talaata bii di ñëw moom lañ koy fàttaliku ñoo ngi koy ñaanal suñu boroom fayal ñu ko waaye suñu boroom yokk ay leeram ca barsàq Muhammadiya seex Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne moo fi nekk yi te wuutu ko maa ngi ñaan yàlla mu sàmm ko ba mottali mboolem ay naalam ñoo ngi ziyaara mbooleem it ñi nga xam ne ñooy ak njabootam moom Cheikh Moustapha wala moom Cheikh Mouhamadou Lamine Baara suñu aboo maa ngi koy ziyaara bu baax a baax a baax a baax sama wëllëri la ak suñu Abdul Fatah maa ngi leen di ziyaara bu baax di njabootu Alhaji Mouhamadou Lamine Baara waaye soxna ajaratu bintu Fall mi nga xam ne euh, sama bàjjan la nekk ci kër Sëñ Moustapha mooy maa ngi koy ziyaara bu baax a baax ci bis bi sama xarit nag sama wëllëre koo xam ne kenn la ci man Cheikh Mouhamadou Moustapha mu sëñ Modou mooy sëñ Modou mu sëñ Moustapha moom kenn la ci man émission bi moo ko doon coordonné wax dëgg yàlla ba délégation boobu ñu ko naroon a àndal moom moo leen moom moo ko nar moo ko doon coordonné waaye yàlla dogal tey jii mu tombeek seen conférence boobu moo tax mënuñoo ñëw moom it ñoo ngi koy biyaar beral ab nuyoo akub ziyaara noonu la ñuy ziyaare yi sëñ Mourtada Lo moom Cheikh Moustapha Karim moom Alhaji Mouhamadou Lamine Baara noonu la ñuy ziyaare yi Baye Galas Mbacke moom it sama xarit la sama. Euh, doomu bàjjan la moom it maa ngi koy ziyaara bu baax a baax ak mboolem njabootu sëñ Moustapha gi yépp waaye mboolem njabootu alxaaji Mouhamed Lamine Baara waaye di ci siyaare it borom kër gi alxaaji Mbañik Diop moom it maa ngi koy ziyaara bu baax a baax ci bisub alxaaji Mouhamed Lamine Baara bi ndax moom alxaaji Mouhamed Lamine Baara mooy léppam fii ñu yëkkatee suñuy kàddu ngeen mën a dégg suñuy kàddu man koo jëriñoo immeuble bi alxaaji Mouhamed Lamine Baara la ko tuddee kon kooka am na mu demee ak alxaaji Baara Fadilu ñoo ba yéene ji alxaaji baara amoon ci moom ak cofeel gi amoon ci moom yàlla na ko yàlla mottali ci xalifaam bii nga xam ne mooy Cheikh Moustapha al Karim moom alxaaji Mouhamed Lamine Baara xam naa dafa mel ne li duuf ci nag wi daa xëjandoowul ci cin li te euh, euh, waxtu wi xaw ñoo dab looloo taxoon ñu ne nañ indi dara rek euh, Mouhamed mooy ki nga xam ne moo nekkoon ci kàddu gi moo moo nekkoon ci xarala gi sëñ Baara Mbàkke moo nekkoon ci kàddu gi seen émission keppaaru mag ñi la di am dimanche bu jot 22h ba minuit fii ci seen télé Rewmi TV ngeen doon ko ànd ak seen mbokk sëñ Baara Mbàkke lu ci jub yàlla la lu ci dëng matati doomu aadama la in uridu ila al islaaha mastataatu wa ma tawfiqiya ila billah wa aleykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh Ahmad Sulayman bi sarfi al masiyaat kay ma taqu da simaami أبا إذا ازداد قلبي أذن بهجتها ووجهت لي هدايا بالمبرات أمست تطيب نفسي كي أميل لها وعودت ميل قلبي